leeral tu TV te mooy jox lii di askan wi xibaar yu leer wér wóor te teg ko ci màndu day indi li nëbb woon askan wi jox leen ko ci réew mi ak biti réew wax jépp day woddu del topp tey abone tem boole kook déglu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu dee ku leen wooteel bu rëy alxuraan laa wax de du ma wet bii yàlla dalaa digal nga lànk fan la ko yàlla wax yàlla nee na وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان دونو مولي وين غيسه كو بغا سوق لي سينو ريو وين غيسه كو تيكو بروجي بوي دافار ريو كي لي تخ ني سون نييب ген سينو تيونو ني جانغول بك ورا جانغ ني فيبر ورا فاجو liste boobu leen di suqali bu ngeen ko gisee na ngeen jàppale ke leen ko proposé te mooy albir ba taqwa teg ca ni bu ngeen gisee koo xam ni daa taxaw ni bu ngeen ma bu ma gañee réew mi dootul dox su ma gañee damay bloqué assemblée bi wax ko jëfe ko ndax ba mu nekkee majorité taxaw na lànk ni assemblée réew mi du dox bu ngeen ko jàppalee wala taawanu alal ismi wal udwaani ci ngeen nekk wala dégg guñ ko ma jàng ko xasida bokk Serigne Touba nee na Serigne Touba nee na waaye bu bëgg a yàq déclaré ni day yàq nga jàppale ko ca yàq ga xam nga noo mel ab bandi ab agresseur bu taxaw di tënku ni su ma fi diw fekkee ma rey ko nangu alalam nga fekk ko mu yor yetu gi tax nga jaay ko jaas mu ne la ooma njëg nga ne ko faral far naa la ko may mooy ka baagi ay li lissin ka naa fu mu nekk Masaalikul Jinaan man sama dëgg mooy képp mu sàggan ba jàppale gaañ man xaw ma sax mu tudd maanaam woteel kudul président Ousmane Sonko liste booba ku woteel kudul boobu man dogg naa ci li ma ci sama xam may ñàkk ñàkk fam xam xam naa ni ci bàkkaar nga ne parce fekk nga ko taxaw ni danaa bloqué Sénégal nga jàppale ko ci bloqué Sénégal fekk nga ko taxaw ni damay yàq nga jàppale ko ci yàq ko fekk nga ko taxaw ni damaa bëgg defar nga won ko gannaaw lépp mooy ki nga xam ne dañu yàq. dañu am conscience yeewu nañu bu yàgg xam nañu li ñu war a def nañu jóg ab xare la nag du bu ndaw de du meeting yi xumb ba tax ku nekk naan toog ni gañe nañu du ma dem déedéet meeting yi lu mu xumb xumb vote bi moo ko tax a jóg nañu dem vote ji nañ vérifier carte yi ñu ko amul nañ ko jëli te dem vote ji te teel koo def bu ko bu ko defee ñu am li ñuy wut mooy gaña maa ngi jéggulu ñëpp di nuyuwaat ñëpp di ziyaarawaat ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu débat politique ak l'islam ñu leen di nuyu bu baax di am naqar bu réeréeréeré ak tiit nag tiit ci sunu nit ci daara fan lañu jëm ak sunu daara ak fan la ñu jëm ak sunu diine ndax dama xam ni caaxaan ak tappale yu mel nii yii nu ci sëriñ daara mën a yëkkatee kàddu yu mel nii li mu wax moom ci ko boppam mi ko xam ne li mu wax du dëgg xam na ni yàlla waxut loola ci aay yi ku woteel waa boor bële am nga bàkkaar du dëgg ku woteel waa bii ci ndigalu yàlla nga nekk loolu du dëgg bëgg koo layalee ni wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan kan moo ñu wax ni woteel ñii du taawanu alal ismi kuréel goo xam ne ñoom dañoo dem ni yàlla ni nga tëralee mu pour muy doxal diine d'accord ñu ko ni tubaab bi tëralee pour ñu doxalee ko àdduna noonu lañu d'accord mooy laïcité nga ni boo wotelee laïcité yaa ngi ci diggal du dëgg boo wotelee loola maanaam dañ naan sax ku wote ku ne yaa ngi ci bàkkaar loolu la ñu wax ndax li ñuy wote woo nekkul àtteb yàlla ak yonent bi waaye àtteb nit la kon kañ ngay dugg ci cadre boo wotelee boor bee am nga bàkkaar boo wotelee boor bi yaa ngi ci digal muy layalee ni wa taawanu alal birri aaya bi waxut loolu jëmu ci loolu ndax bu fekkent ni eh, législative yii lay wax ni moom mooy taawanu alal birri wooteel ñii ñu doxal programme bi nga xam ne mooy tax ñoom programme bi ñu tëraleel pour avancement pour développement ana lan moo ciy santaane yàlla ak santaane yonent bi lan moo ca nekk loo xam ne nit a ko tëral te méngoowul ak diine programme boobu ma ngi cay xeex droit wu ñiy jaay seen bopp nga woote ko pour ñu dooleel ñiy jaay seen bopp programme boobu danga ca fekk luy dooleel këru kartukaay yi nga wote ko pour dooleel këru kartukaay yi te xam nga ni carte dafa xaram loolu mooy taawun alal birri ma wax nga jël aaya alxuraan di ko layalee loolu lii nag mooy benn taxawaay ci taxawaay yi nga xam ni yahut yi dañ ko daan def kon képp ku ñëwaat seen gannaaw di ko def ab yahut bu taxaw la kon moom mii taxaw di déclarer lu mel nii ci jëmm ci ci bërëb bu mel ni sunu boroom soppi na ko bu yàgg mu yor melokaanu yahut donte mi ngi wuyoo jullit moom moom de soppi na boppam def boppam noonu yonent bi doon seytaane nit nag moom moomu na xam ni soppi na boppam jóge ci imaam bi muy woote boppam ak nitu daara bi muy woo boppam yóbbu boppam ci kuréel gi nga xam ne dañuy tuddee feccikatu wóllëre yi benn bu ci nekk rek aaya alxuraan koy lay la jëfam ji mu jëf ak képp kuy jëf-jëf ju mel noonu ñetti étiquette yii sunu borom tappal na ko moom na xool nag ban étiquette moo ko ca gënal waaye ñett yëpp moom nee na sa ca biir bi ci njëkk moom mooy def na boppam yahud ndax suñu borom wax ci alquran ni min alladina haadu yuxarrifuuna alkalima an mawaadiihi kay bokk na ci yahud yi ñi nga xam ne ñoo yor melokaanu yahud même bu ñu fa juddoowul amuñu fa ndey ak baay waaye seeni jëf jëfi yahud la mooy ñi nga xam dañuy fekk yàlla wax lii ñu soppi wax jooju wax leneen comme ki ni boo wotelee opposition bàkkaar nga am boo wotelee pouvoir bi yaa ngi ci yàlla santaane ndax loolu la yàlla wax ci taawunu alal bir c'est archi faux soppi na wax jëlee ko fa mu jëmoon yóbbu ko feneen fa mu jëmoon kon déjà ci wax jooju moom def na boppum ab yahud beneen bi moom defna bopam nonu yonenti bi te soppi bopam don doon nit lolou sunu borom waxna ci alquran ni wa kadhalika jaalna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn lutax yuha yuuxa baaduhum ila baadin zuxrufa alqawli gurura ñoom ña ngay top ñelen top di arnaquer sen xel di nan sen yur den wax wax joo xam ni caaxaani képp la te waxam ji dara gënu koo doon caaxaan fekk gouvernement boo xam ni la muy wote jëm ci day gën a dooleel laïcité gi mu nekkoon nga ni ku wooteel ñooñu yaa nekk ci ndimbalante ci baax te laïcité googu mooy may doole ki bëgg njaaloo ji dem njaaloo ji mooy may doole ki bëgg carte xaalis dem carte xaalis taxawal ay këri lonage ak yu ni mel mooy may bitu yi ñuy jaayee sàngara ñu ko nga ni ku wootal ñooñu wala ko wooteel euh, lu ni yow yaa nekk ci ndimbale lu baax te du dëgg kon bu ñu propagande nañ propagande te bàyyi alxuraan fële dañu propagande bañu dundee diine ji beneen bi nga xam ne suñu borom moo leen ko tuddee ñoom ñi yor melukaan bi ñu fecckati wëllëre lañ ñu yàlla rëbb lañ ndax suñu borom moo ni fa bima naqdihim mithaqihim la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya lu tax yuxarrifuuna alkalima an mawaadiihi ñii feccikatu wëllëre yi ne lañu ñu gëmoon démb ci daara ak li ñu gëm tey ba ñuy wut post bokkul kon feccikati wëllëre lañ ay warkat lañ war gi ñu war nag ak fecc gi ñu fecc wëllëre loo tax dama leen a rëbb dama def seen xol yi mu wow koŋ mu yëgatuñ yàlla ndax waxalatuñ yàlla li tax loolu dal len moy yuharrifuna al kalima am mawaadiihi dajé fek la yàlla wax ñu soppi ko wax lenen wa nasu hazza mimma zukiru cër ba leen yàlla cëraloon sax faté nañ ko wut place ya xeyti waru jar nit ki ngay waxal yàlla lu mu waxul loolu nag sunu borom da ci wax ay kàddu nen la taftaru ala allah kaziba bu len sosal yàlla diko waxal lu mu waxul te ngor si lol la def sosalaale na Cheikh ahmed bambar radiallahu taala anhu ci abiyaat yum wax ni beuy yoy dafa jëm ci ni na ngeen dimbalé wa parti bi du dëkk subhan nee na la tashtaru bi ayati samana bi ayati llahi samanan qalila sama aya yi sama discours yi sama kemtan yi sama njàngale mu rafet ni bu len ko ak njëg bu neew njëg bu neew gi nak kemande poste député ci la bok ndax ki day kemande poste député tax muy soppi waxu yàlla diko diko diko jëme ci gain de cause am ku sunu borom rëbbal benen bi nak sunu borom ne wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun mom ci bopum mo gëna xamni ay bi waxut lolu ay bi waxul nan dimbali len parti bi wala parti bële ay bi nekkul naan nañ dimbali démocratie bi di mel aay bi dimbalante ci mbaax la wax est que ñoom li ñu yor lépp mbaax la est-ce que ku leen votel ëllëg du ñëw di pour promouvoir góor jigéen est-ce que du ñu leen votel ëllëg ñu ñëw di dooleel droit ak libert goo xam ne day yóbbee nit ki muy def li yàlla xaraamal est-ce que démocratie bi ñu proposé mooy bi yàlla santaane ba tax nga war a jël aaya bi yàlla di ko dëgëralee loolu waxuñ dëgg kon yii ay njaxas la te mom xamna na ne li wax jime ko ci ay bi yalla waxut lolu kon nak bu len di jaxase te xam ngeen da ngeen di jaxase suñu borom tere na lolu te lolu melokar bi yahut la kon ci ci gatal moy mom na dem tuubi ji lim wax te jéggalu julit yépp te xam ni gain de cause poste sub député war naa warul tax nit di sosal yàlla ci leen moom nag li mu wax aaya alquran la nag benn aaya alquran bu jëmul sax fim wax ma andil ko ay aaya alquran yu bari yu dajj cause bi muy défendre ak fam ko jëme bu fekkente ni nag mën na génne leneen ci alquran luy layal taxawayam bi na ko génne wa in uttum utna wa jaalna lil kafirin asira in uttum udna wa jaalna jahannama lil kafirin salaamaaleykum wa leeral tu TV te mooy jox lii di askan wi xibaar yu leer wér te wóor te teg ko ci màndu day indi li nëbb woon askan wi jox leen ko ci réew mi ak biti réew wax jépp day woddu del topp tey abone tem boole kook déglu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu